ci café Touba bi ah. mais euh, loo <laughs> wax si temps booy nga ne neex neex rek neex ah <laughs> jaajëf gars yi. nice. naka affaire waaw Dakar Dakar laa jëm. waaw ah, Pikine bi euh, Kër Wara Sarr fan la fi. Kër Wara Sarr nii la rek tout droit bâtiment bu zone bi kër gi si ginnaaw. mais man xam nga lu ma jaaxal. Wara Sarr ak euh, guy gi kan moo fi gën a siiw. a siiw loolu tooy na waat si yaat mais guy gi siiw na. mais Wara Sarr tamit siiw na. mais guy gi rek. Wara Sarr rek. guy comme poon. moo daa siiw ni po. góor gi góor gi wala saar mi mel ni kabel yaa nag. moo. bàyyi mu waay moo yow. fii guy gee ko moom. rii guy bi. yow jox ko deux mille garaaw jox ko deux mille. waaw doo mille cinq cent rek. mbaa ma ma client bi mbaa du garaaw. non du garaaw ah waaw yéegal yéegal dafa naa yéene bopp yi naan waaw waaw ci biir yow. yow fa wàcc yow. kon jeex na benn la yéegal yéegal benn la yéegal. bu tey métti démb neexoon na jàmbaar mooy. Mr. Marwa. góoram làmb làmb ci jàppante rek góoram métier. yaa ngi koy gis yaa ngi gis koñ bi ah waaw koñ bi ah. waaw boo taxee kër Diouf ngay jàkkaarloo. boo nee ne kër Wara Sarr Karim rek. ak sa yaa ngi kër Wara Sarr. kon nice. waaw ab yaa ngi ñëwaat. maa ñëw far. ok ay eh, gars yi naay sax. xaalis dañ koy def ci poos parce que boo ko defee fii na moom tam gars yi na xaaral la ñuy def xaalis. mbokki euh, téléspectateurs yi yéenay seetaan euh, l'œil euh, du tigre ñi ngi fii nag nga xamante ni fii mooy Comico alors tey nag lu ñëw seet si ki nga xamante ni moo di guy gi tey guy gi nañ fas yéene àndal dans l'œil du tigre en tout cas yéen waa Comico ni ngi leen di gërëm di leen sant di leen ziar mais aussi di leen xamal ni tey dara du yomb ndaxte ku ñuy seeti c'est guy gi c'est parti yow daal teel nga buur say maas bàyyi ci jàmm euh, fii mooy kër guy ga daa jëf waay euh, moom laa ñëwoon euh, seet si quoi fi rek non ba dafa dafa génn. waaw dafa génn waaw. grand man ma ñëw ba kër guy nga naan ma dafa génn. ba dafa doori dafa liggéey gars dafa dawali. dafa. dafa liggéey. dafa liggéey. fu muy liggéey moom. ah moom si tali bi rek xoolal si tali bi day daw moom si tali bi. li muy daw si tali bi. ah taximaan la. guy gi taximaan la. taximaan la bu bëriwul day day day day day kii bu bëriwul day day day liggéey day dawal. fan lay taxé. waaw xool Carrefour. fan. Carrefour. Carrefour. fan mooy Carrefour. ah rond-point bi nekk fii rek côté Amo Cissé. doo ma ko tegtal grand. waaw mais Amo Cissé da ngay taxaw fii nga jël kalandoo da leen Amo Cissé laay wàcc quoi. Amo Cissé. Euh, foofu su ma fa taxee. normalement dinaa fa gis. guy ji foofu la nekk. foofu la garage am nekk. garage am nekk def waay jaay def gars yi na ngeen def waay naka bagage yi bëgge naa school fii mooy karaf fii mooy karaf oui fii la taximaan yi di nekk yaa ngi ci seen biir ah bon oui euh, guy gi fii lay dawalee xam naa ne war ta sor de xool ko ci biir mbaar mi nag gars yi fi ñuy bëlatee xool ko fii fii fii mooy mbaar bi fii mooy mbaar mi keppaar gaa ngi Ndiaye magal mu Ndiaye naka la ngeen. ati. ku toog ku toog grand maître. waaw waroo toog moom waroo toog waroo toog. léegi nag xool la doy sax tey. da nga am nga gan mais léegi bi dëgër na. waaw yow lay xaar. ah moo dëgg. 3000 nekk sama poche 3000 3000. ana guy ana guy gi ñëwagul. ana mu. mu ngi nii. waaw waay. loo laa jógee. fii laa yoroo fii laa defee lépp. damay siiwru. Ah. te ngoon suba ba tey 3000 laa yor. ñuy def Abdallah jàppal ko baal sama grand bi jàppal la bu la jàppalee. Ah, ñu am nu waxtaan tuuti kaay kaay kaay. si la xam naa ne ma kaay. mais góor gi. mais saa ni nga ndekete. dama ñëw ne ma da nga yóbbu benn client. waaw dama benn Almadi Almadi laa demoon yóbbu. kon Almadi nga demoon nii Almadi waaw ok mais guy gi euh, yow ça fait combien nga nekk ci taxi. waaw mun naa ne nag mun naa ne diire naa ci quoi parce que sama carrière yëpp ci oto laa ko def. ah bon waaw sama carrière yëpp ci oto laa ko def sama turandoo Baye Sayer sax maa ngi maa ngi sama tante Maïssa ak sama tante ak Baara. ak Tafa ñun ñoo defandoo métier bi daal. Mhm. ba tey dara yàquwu ci. Mhm. léegi mu jàngal ma métier ba sama métier mokk ma génn tamit dem defi comme comme ni ma la ko waxee rek tamit sens si làmb ji. mbër day am métier. dëgg la mbër day am mbër day am métier su may laaj mbër mu am métier lan nga may wax. mbër mu am métier mooy comme ça làmb kenn néew làmb dañ koy bind ne mooy métier. non la. raam bu benn temps bu gàtt la gën ngaa bari bari bari carrière du passé dix ans. Mhm. non de yaa seen retraite c'est quarante cinq ans. waaw non carrière la du passé dix ans. waaw du passé dix ans. dëgg la waaw ans yooyu nag kon da ngay bu dix ans yi jeexee nga yor sa doole pare amul métier da ngay dëgg la. ci biir 10 ans yi sax mën nga am yàlla tere benn tolof tolof amoo métier da ngay nga gaare fa te mënoo dëkk nit ku ne chaque jour ma lay nga naan ko may ma may ma may ma. dëgg may ma wala ma bu yàggee da mhm. da ngay nëbbatu nga yomb seen métier dalee dugg ci li nga xamante ni moo di métier ba léegi. boobu ba tey mbër yi rek ñoo fi wane seen i métier. non mbër yi gars yi dañuy wax rek mais mbër yi moom gëm naa ni xaaj bi xaaj bi xaaj bi yëpp am nañu métier waaw ñëpp nag xaaj bi am nañu métier parce que ah man boog li ma ko jàpp parce que kenn tëbul tëbul di dof di dof dof dof rek jël làmb def ko métier. Mhm. loolu nit dafa wàllu ko ko. di nga am sa métier bopp boo xam ni yow da nga xam ne lii sa métier la. Mhm. waaw mais comme jot toog ci làmb rek tey ji noonu ah. ma man boog man boog jàppee ni ma jàppee suñu bopp laa jàpp mbëri mais jàpp nu mbëri ñoom nit lañ ñoo xam ne nii ñuy xalaat seen ëllëg boobu. waaw mm-hmm. waaw bañ a am métier di topp ci lam non non non du métier ñu dangay métier bu la ko moom bu doxul nga dem ci la léegi. guy gi xam nga yow ku la xool ku ne xam ne champion nga. Mm. ku la xool xam ne tamit euh, star nga. Ah. Euh, terewul maanaam dangay bàyyi làmb gi fële. nekk si sa ci maanaam di dawal si sa taxi tey bu ñuy waxtaan ci taksi euh, lan nga may jàng ci taxi ak lan nga may wax ci taxi ndaxte taximaan yëpp xam naa ni tey dinañ la bàyyi xel taximaan yëpp dinañ la déglu te xool ba xam ndax mokkal nga taxi am dégg tey bu ma lay laaj taxi lan nga may jëkk wax ci taxi taxi naxare na naxarewul mais nag li naxare li négatif bi mooy jëpp parce que guddi gi guddi gis lu ne di nga dégg lu ne mais da ngay muñ mooy tax nga génn ci mais am na nooy doxee rek mun nga cee doxee yàqu wala am na doxee mun nga cee doxee tamit loo ci jëlee lu positif quoi. Mhm. guddi gi lu ne ngay gis nga gis jinne nga gis gis boo xam da lay tooñ jigéen ñuy dox guddi tooñ la ak yéen nga gis. mais mhm. muñ ak ñaan yàlla yàlla suturaal la ci rek mais taxi moom taxi bañ ne taxi rek nag lu ne ngay gis lu ne loo xalaat nag kat di ko gis waaw léeg-léeg sax nga ginne waaw ñëwal paas mu ni mes waaw li li nga yëpp jinne ñëwal paas mu ni mes doo gis leen mais li ma mos a daal mooy benn femme bu ma yeboon yàpp ko wàcce ko maris bu ma ñëwee ba maris ma soxna si doomal lu fay mënuma bool bool bee fi nekk bool bi boo bëggee bool bi ma fay la ma ne ko luy bool bi mënuma boo wàccee xam luy bool bi ma ko wàccal maa ngi ñëw mu wàcc ma def prévision parce que wóorul woon quoi waaw wóorul wóorul waaw wóorul quoi. nga daw. waaw waaw ma génn ma génn. kon loolu lépp am na ci métier taxi. yii. yow Saar nga xam nga li ma la taxi moom de. Hmm? da ñaan yàlla suturaal la rek mais. le soo quoi dafa tàng taxi da lay waaru. guy gi yow lan moo la xiir si taxi. ah man sa transport en la. waaw man sa transport en la de. ndax su ma la ciy laaj sa jaar jaar lan moo la ci xiir ban instant nga toog santi ne kat da war a dawal taxi laa mujj dawal mais man ci 508 laa nekkoon ok man ak suma doomu turandoo baar à passage bi ko nuyu baara muy koo xam tey bi mu duggee ci làmb ji tey bi mu duggee ci làmb ji benn yoon avant may xam nas ak war a saar baara moo ma njëkk a defaral 117 yóbbu yoon ñaari yoon bis may ma xaalis bu bari seetaanu ma ba nii ba nii ba nii chaque jour la may woo ci loo nekk nangam ak nag kon yaakaar naa kooku tey tey su ma nekkee transport bi tamit yoon la ma ni fii ak fi fi ma jaar ak moom parce que nit bu la defalee ngor njëkk bu fekkee làmm loxo mënu bu ko fay bu làmmañ nopp nit ku baax noonu lay def. ñaata at yaa ngi koy def. waaw man. man man man transport en commun ci boppam yàgg na mun naa def naa ci 15 ans. 15 ans waaw transport fukki at ak juróom. waaw lan lu neex nga ko ci nga ci def loo xamante ni que marqué na la tey boo koy fàttaliku sa xol dina neex muy sa métier bi di taxi bi nga nekk. waaw comme li ma la rek man moom ma mas naa waaw li ma def ci loo xam ne lu ma neex ci oto ci transport mas naa yóbbu benn paa moom fekk boobu màggal Tuuba woon. yàlla def na yorul quoi waaw man du ma tudd turam sax mais après ma ñëw jël ko ay bagage jabootam yëpp yóbbu ko mu expliqué ma quoi. Mhm. mais ñaan ma doon ñaanal keroog man gëm naa ne ñaan yi dal na ma quoi. Mhm. tey paa bi def naa mun naa ne tey chef la moo tax yàlla dafa abale. Mhm. waaw tey ba ba ma ko yóbbu yoruwul dërëm mu expliqué ma quoi boobu man maa yil photo bi. ñëw jël oto bi yóbbu ko jël bagage yi ak six doomam yoo ñoo waroon dem Touba ak bagage yëpp yóbbu ko ñaan bay jooy ma ne ko nag waaw dama ko jàppee comme sama papa rek bu doon fii la toll moo tax waaw. sànq dégg naa la si sa biir wax nga ni am na loo xamante ni su ma koy wax sax sama rangooñ dafay tuuru. waaw li ma dund comme li ma la wax rek moom métti na métti boo xam ne xam nga dañ koy santawaat yàlla quoi bu baax a baax a baax dañ koy santawaat yàlla parce que. suñ ma ko doon nettali mun naa ni suñ ci jaaree woon mun ñoo téye suñu bopp parce que moo tax dafa am nu ñuy def moo tax duñ bëgg ci jaar quoi mais na moom trop métti na nit ki buy jàngi métier wala lu lu mu nekk hmm. na jàpp ni chaque jour rek mën na cee jël paye dëgg la jour mën na cee jël paye na jàpp ni rek moom gor la te bu mu ñàkk ba jaay ba jaay ngorom. ak li naan bul am ba naagu. waaw ñàkk ba saali bul ñàkk ba saali. waaw xalaatuma saali. Mm-hmm. parce que tamit sama papa ak sama yaay ñu ma bëgg lañu. Mm-hmm. sama papa ak sama yaay chaque may delloo ba nii nekk ak suma mag ju ma tamit rus ko mu déggal ma ma bàyyi leen Thiénaba ñëw Dakar te bu ma ñëwee Dakar sama papa bi mu ñëwee toog ak war a saar waxatul wax lu ko jëm ci man pour lijjanti ma sama yaay tamit bi ko gisee waxatul ci man lu jëm xam ne soxna si. ni mu jàppee doomam nu ko raw la ko jàppee wala soxna si jàppee nu ko raw kon yaakaar naa kon man loolu dama ci sant yàlla mais mënoon naa ñëw Ndakaar sànq mënoon naa ñëw dagaar mel ni yenn booy soo bëree def sa xaalis boloo sa carrière bi yàq nga yàq mais tey amul mbër boo xam ni naa la ci dara di sant yàlla bu baax nag li ma yàlla boole ku mel ni nas naa ma defal nangam defal nangam defal nangam man nas bu ma xëyee nekkuma ci projet bu baax sax mu mere ma kon yaakaar naa kooku tey amulul fayam gërëm ko ñaanal ko sant ko. mais guy gi man de lu la metti buggoon naa ko xam dëggantaan Ndiaye vraiment li nga vivre loo xamante ni metti na la. dafa am am ñoo xam ni da dama doon dama doon dama dama doon dama nekkoon ci benn gàlle. benn gàll nekkoon ñu jiñ man ak ñaari booy mu ñetti booy boobu xale lañu ñu dem sàcc kirij. ngeen dem kirij kirij. ok kirij jaay ko 1000 francs. Hmm. moom xale koy def. Hmm. nga jaay 1000 francs ma ñëw maa ngi dégg sama benn tànt ci kër gi boobu maa ngi jaay métier foofu moom ñu ngi ko génne kër gi parce que famille bi moom rek fi sàcc. maa ngi ay doomam àndoon de. loolu métti na ma trop. Euh, ba ngeen sàcc prix bi. jaay ko à 1000 francs. waaw ah, 1000 francs loolu métti na ma trop trop trop trop. Mm-hmm. parce que ni mu ko waxee la ko fay. àndoon ak euh, guy gi le champion moom nag métier am gis ngeen ko maanaam moom nag chauffeur de euh, taxi la chauffeur de taxi la te it euh, lu ne def koy jàngoonteel ci taxi bi. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen xamal ni nag sama waa jaa ngi nii te moomat waay saa waa ji saa waay billaay moomat waay mën na ci bii boor te mën na ci bee boor. guy gi non non dama la waaw. nan muy waay ah waay <laughs> bu kenn ragal gàcce nga la am jàmbaar muy des ca waar wa